إنني وست بالإله المعين من جميع العسى وكل العين إنني عس بالإله المحين من جميع الأصى وكل العين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 alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wattamkin amma baadu fa haza alyowmu yowmu alciid likulli muminin muslimin muxsinin saciid fashkuru llaha tabaraka wa taala fiih wa ala kawnihi sururan linnabiyi wa liman yaqtafiih صلى وسلم عليه الله في آله وصحبه وكل من تلاه وأوصيكم فيه وبعده بملازمة ما اختير لكم من الأخلاق والعقائد والأقوال والأفعال لوجه الله تعالى القائد وأحذركم فيه وبعده عن فعل ما لم يختر لكم من العبادات والعادات fa innama xtaarahu llahu tabaraka wa taala lakum huwa aljaamiu li saaadat fa tuuba liman laa yaltafitu ila gayri rabbi mulaasiman maxtiira lahu min muniri lubbi wa waylun liman qaadahu iblisu ila ma shaa fa innahu yulaasimu ma axza wa asa qaala allahu tabaraka wa taala wa ma aataakum arrasulu fa xuduuhu wa qaala allahu tabaraka wa taala fa man yacmal misqaala daratin xayran yarah fa tuuba liman axada maa ataa bihi rasul alayhi bi alihi wa saabihi salaama muti suul wa lillasi himmatuhu tartaxi ila alxayr laa ila alkadari waddayr wa waylun liman lam yaxus maa ataa bihi almuntaqa alayhi bi alihi wa saabihi salaama man jaada bintiqa wa uusikum ayuha al ixwaan li wacci man kafaani dawil xasadi wal udwaan bi an laa tufaariqu maxtira lakum abada fa inna mufaaraqatahu tajurru ilaykum araman wa abad wa kabada wa anhaakum an fihli kulli ma lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ila xayrikum al ajra wa rida wa sawaaba wala tatlubu al karama bi gayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min gayri alasis almuiz bi jaahi abdihi nabiyihi rasulihi alaz fa inna man adbara an illahi tabaraka wa taala ila siwah tarakahu maa nafsihi wa hawaah wa man aqbala ila allahi tabaraka wa taala maa alwasila qaada ilayhi kulla ma kaan yartaqi ilayhi min aljamila ya ayuha annaasu ubudu rabbakum ittaqillaha xaysu kunt man kaana yuminu billahi wal yawmil aaxiri falyaqul xayran aw liyasmut qad axbarani rasulullahi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama wa baraka anna man taaba min ummatihi qabla mawtihi fa innahu yashfau fihi inda mumiti mayti wa anna man lam yatub minhu tawbatan nasuha faqad amarahu man waasahu nasiha rabbana laa tusi qulubana ba adis hadaytana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 muy sëriñ Abibu Mbàkke mel na ni wax na ci kàddu Seex Moodu Muntaxa kon ñu nuyu mbooloo mu fi teew mépp njabootu sëñ Tuubaa gi fi teew ci anam yépp moo xam bokki Mbàkke yi la moo xam bokki bi moo xam seexi sëriñ Tuubaa yi dañu bay lim di bàyyi kenn te ñu fi teew bari lool te ñëpp di ay bokk di ay taalibe di ay jullit kon ñi fi teew ñëpp rek noo gi leen di nuyu di leen sant bu baax ci taan giñ taamu barab bi di fi teew di fi julli ñaari nit yëpp te du ko def ngir jëmmi sëriñ Touba ak jëmmi sëriñ Falilu mi nga xam ne moom jotaay bi noo ngi sañ abi bu sunu cant ci mbooloo mi bu baax di rawatina ñi nga xam ne ñoo yor jumaa ji di ko toppatoo li ci war lépp ak ñu nekk ci daara ji fii day barabu sëriñ Fallou boo xam ne bii loolu rek a fi nekk leneen nekk ñoo leen di sant bu baax di la ko seedeel suñu abibu di ñaan ñu teewee ko naga ni déwén te kenn bañ a manqué di ñaanal ñi nga xam ni ñoo nekk ca barab yu sell ya di joxe seen farata suñu borom defal leen jàmm bañ dellu seeg jàmm fekk na fa ci jàmm te suñu borom nangu seen ak aj ñoom ñëpp ña ca yaakaar sëriñ Touba ñu def ko addi sëriñ Touba. suñu boroom nangu lépp ah, bis bi nag liñ ciy wax lu gàtt la mooy rek wax ni sunna su feddliku la soo xam si yonent bi sallallahu alayhi wa moom la ko suñu borom digal mu def ko diggan jullit yépp ñu di ko def ñu xam ni nag du loo xam ni lii suñu borom lépp lu mu santaane laa yukallifu llaahu nafsan illaa wusaha na nga ko mën rek na lay bàyyee nga defee ko noonu la ca des yéene koy mottali ñu xam ni nañ ko daan waxe woon daaw rek tabaski mi boo ko defaree ba noppi sañoo ca jaay sañoo caa def dara lu dul xéewlu ak saraxe su ko defee ñu fàttali itam kàbbar yi nga xam ni baaxoo nañ koo kàbbar ci tisbaarug tàmbale ko tisbaarug tey ba bisum ñeenteelu tabaski bi ca fajar waxtu woo jullee nga kàbbar ñetti yoon bu ko ilimaan ci defee bu ko imaam moom it doyloo baax na ku ko mën a defal sa bopp it baax na waaye ñu xam ne kàbbar yu itam mooy takbiiru ayaam mi nan dañ cey roy ña xam ne ñoo nekk feefa mi nan te fan yi di fani kàbbar màggal yàlla yëkkati ko kon ñu ñu ñu jàppe ko noonu da ca des mooy rekk xanaa ñu fàttali jëkkanteeg sañu abibu fàttali ñetti kàddu yi nga xam ni sunu kilifa ko baax ko daana ko daana ko dénkaane ci waxtu yu mel nii te mooy tuub sàkk sarax balonte àq xam naa tas gi moom dañ koy bàyyi suñu ébi dina ko dina ko gën a leeral ndax ñett day ñetti baat yoo xam ne bii dafa dafa dafa boole àdduna ak àllaaxira ndax tuub sa digg ak yàlla la ku tuub suñu borom jéggal la moo ko waxal boppam euh, balonte àq suñu diggante doomu aadama yi la sàkk sarax suñ suñu bopp la suñu bopp lay yem lépp loo fa loo lebal yàlla bu ëllëgee boo ko fekkee mu fay la ko balonte àq yi suñ diggante la nekk nun jaam ñi bis benc ba dara du fa du fa du fa du fa du fa téye nit lu dul diggante ba mbokkam mbokkum jullitam waaye bu doon diggante ba yàlla rek suñu borom njéggalam yaatu na te mooy gi du ko wàññi dara yàlla gi ko dara moo tax loo mën a def lu mu rëy rëy rëy lu dul bokkaale ko leneen soo ko jéggalu mu jéggal la waaye doomu aadama day koo xam ne kii bu jéggalu sa moroomam fii ci àdduna bu demee foofa du ko mën a jéggal ndax foofu aw yiw du fa doy kon ñetti baat yooyu la Serigne Fall daan daan digle ñu yeesalaat ko jotaay bi ngir rekk ñaan bu sañee bi di ñaan mu ñaanaale nawet bi ñu nawet bi ñu nekk te tàmbali ko suñu borom àggale ko ci jàmm te muurloo ko ci barkab Serigne Touba ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal nag suñu kilifa yi fi nekk ci jotaay bi ak ñu baax ñi fi nekk kilifa yu baax yi fi nekk di ñëbootu Serigne Touba nu bokk ñëpp teewlu ñaanal suñu kilifa ñaanal Cheikh Mountakha mu yàgg fi te wér li mu bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu liggéeyal ko nu fekk ko ñun ñëpp ñaanal sëñ Abo mi nga xam ne mooy borom jotaay bi moom itam li mu yéene ci kër sëñ Falilu te kër gi fii bokk ci barab yi sëñ Falilu suñu borom dimbali ko yàggal ko fi te wéral ko moo ngi njabootu sëñ Fallu gépp lañ bëgg a liggéey sëñ Tuubaa ñu liggéeyal ko sëñ Fallu ñi nga xam ne ñooy njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp itam suñu borom yàggal leen taawi kër yéeg doomi seex yeeg ñëpp li sëñ Tuubaa bëgg ci ñoom ñu bëgg ko ci sëñ Tuubaa yàlla nañ ko yàlla defal ñu ñëpp ci bàkkub sëñ Tuubaa na ngeen déwén yàlla ko teewee na ngeen déwén te ngeen bañ a manqué wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ bi ñuy fàttiku loolu digg nañu wax ci xutba bi teewul lañ ko tim bàyyi nañ ci xel bu loolu wéyee ñu waxtaan nag waxtaanu suñu waxtaanu murit san sonnante fàttalante ci li xam ne moo ñu bàyyi fii kat aqiqa moo ñu fi indi bu doon sareexa kenn ko ñaata sa pénc waaye aqiqa bi ñu tase nag raw ci sareexa fekkaat ko fi kon ñuy waxtaan ci ak àqiqa mooy ak taalibe te mooy tasawuf ñuy fàttaliku suñu bopp day fàttali li ñu boole Sëriñ Tuubaa te mooy jaayante te as bu waxee daa fonk ko xam te boo gisee jamono yu xat tànk-tànk yi bari eh, ñun dañu waxoon daa mel dañ cee xaw jóg ndax bu ñu dikkee ñu dox nañ suñu bopp àdduna ak alaxira àdduna alaxira àdduna àdduna alaxira da bëgguñ fa àdduna rek lañ nekkagun àdduna si nga bëgg wet li nga waxoon ci xaat bu la sëñ bi santee nga ne nga ne ah moom daa waroon nangam daa waroon nangam laakin yooyu bu daa waroon nag bu ci amee rek ak taali bi daa daa soof doon ak taali kon dañoo war wala di kaar mbir lépp loo xam sëñ bi digle ko te sëñ bi lan lu may la yàlla digle teewul lan lu yàlla tere waaye ñu xam ne bu ñu amee ay jafe-jafe nii nawet bi mel ne jafe tànk jëm nga jamono am ko rey gi bari euh, souffrir nit ñi am jafe-jafe yàlla waxoon ne wala na doon ko bi say bi na xaw fi wala jiw wa naq si wala mari wala fasi wa ba si sabirin daal nattu ginnaaw daal nattu nattu gi leen nattu moom faatu gi day bari ndax agressé gis nañ leen accident yi bari na ñi dee bari na ñëpp gis nañ ko wa naq si meen lama ñu ñaa ñàkk alal ji léegi da nga gis loo day day yëngal dara yàq mu ñàkk loolu xamul tax mu ñàkk ko wala bakkan yi dee na wala samaraat amut ndax li naa wax lu waay ñàkk-ñàkk njëriñ parce que gën laa ñàkk njëriñ parce que am njëriñ léegi parce que nit ñaa di ko jox seen jur gi am ni ma nit ñaa ngi koy di ko jox seen jur gi te loolu lépp yàlla bokk na natt yu sëñ bi fàttali yàggu rek ba mu jaay sëñ bi woote na fi jumaa ji jàng dañ ko defee gaaw ba ba ca alxames ji taw waaye dafa mel ne dañ ko wax rek bàyyi wax ko ci kii loolu lépp dëgg la euh, dañ ko daan def muy baax naa salatu istixa waaye li ëpp solo ci ñun mooy delluwaat yàlla suñu borom subhanahu wa taala te tuubaat te jéggulu noonu nga waxee rek àq yi moo bari ak yàqante gi euh, nit ku nekk fekkee da nga jël sa yëngu sa moom fi dëgg ci yow rek boo ya boo ñaane yàlla may la boo tinu yàlla la kon ñu ngi ko wax ko murid yi nii ne tinu yàlla tere yi bari na lool di nga tere bari na ñëpp dégg nañ ko xëy na day topp bakkan rek waaye am na jamono Cheikh Abdou laat ba mu tere tere yu mel nii am ku dikk ne ko ah yow di nga tere bàyyiwuñ ci dara mu ko ay waay jiw sàngam yàlla mi nga xam ne moo bind tere nit ñi gàntu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla yónni woon tere nit ñi sëñ Tuubaa mi fi nekk te ñuy gàntu Abdoulaat bu teree ñu koy nëbb kon dafa war a doy sëkk ñu ngi koy def Abdoulaat Abdoulaat mun tere ñu bàyyi ndax yàlla bu fekkee yàlla yàlla ci boppam gaas njëkk gàntul gaas yàlla njëkk gàntu kay keneen mun yàlla bu ko deexoo ba ne maa xam ci jinne wa insa illaa bu nekk mu tegu yaram ku lànk mu mu fut ndigam waaye defu ko daa xam moom kon ñu dellu tuub te sàkk sarax ñu ko sëñ bi waxee te baalu ndaax te jàmm te delluwaat ak pas-pas yax waaye pas-pas yi daa mel ni bëgg a yokkat ak taalibe ci boppam daa ci ko làmmiñ nekk waaye nekkul ci xol yi jëpp te murit dañ lu ñu war a yëg lay doon te nit ki dafa war a bàyyi li ñuy wax salbu ixtiyaar doomu aadama maanaam ab murit bu joxe boppam àdduna alaxi laa jox sama bopp wóoru am tànn si bopp ni ko si mun taxaa da waxee rek damay jox sama kilifa du ma ko digal du ko tere sama kilifa dama koy bàyyi boppam bàyyi ko sama bopp loolu bu ko defee lépp dopp